alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin almakiin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaani wa tabkiin amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci barab bu tedd bi waxtu tedd wi ñu nekk di leen balu àq di leen baal àq di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal fi sunu kilifa gu tedd gi ci sunu kanam ba mu yàgg fi lool ànd ak wér-gi-yaram ànd ak tawfiq ba yàlla may ko mu àggale yéenam ci diine ji àggale ko ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom tomb bi ñuy fàttalente ak yéen tey yii tomb bu am solo la te yàgg nañ koo waxtaanee waaye du doy te mooy teewlu ci julli alxushuu fi salaa ak ay jeexitam ñu ñëpp xam nañ ne julli lu am solo la ci diine ndax mooy ponk ñaareel bi nga xam ne gannaaw shahadataan yi ci ponk lislaam yi juróom yi sunu borom farataal ko ci jullit yëpp waaye fa ko farataalee nag moom dong la fa farataalee ci mboolem ndigal mu digle muy ca kaw asamaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa joxe ko ko foofu mu wàcc ko ci suuf mooy li nga xam ne saa boo xamee ne jag na jëfi jaam bépp day jag yowmal xiyaam waaye saa boo xamee ne jagut yeneen jëfam yi ci des yëpp duñ ca seet dara saa bu yàqoo rek leneen lépp day yàqu kenn ku seet comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxee ku nga xam ne julli nag solo soo su mu am noonu bay defar lépp mën na defar lépp mën a yàq lépp du julli koo xam ne rek ay yëngatu lay doon ak ay eh, sëgg ak siggi yoo xam ne amul benn maanaa ca biir amul lenn lu ko lambu ca biir ñu di ko jooxee ni ñuy jooxee kuy def sport rek mel ni koo xam ne da ngay def sport di sëgg sigi rek xam ne julli googu ak solo bu toll nii ñu ko jox julli googu rek mayewu ko waaye julli la goo xam ne dafa am zahir ci bitti luy feeñ am baatin ci biir loo xam ne sunu borom tabaaraka wa taala rek sa diggante ak moom la la cay feeñ mooy li ñuy wax matuk jëf ya jëf yëpp sujjóot yaag rukkoo yaag taxawaay yaag ak mboolem jëf yi nga xam ne yaa ngi koy jëf tam lu ñu mën a gis nga def ko defin woo xam ne wu mucc ayib lay doon wu dëppoo ak na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee woon lay doon bañ koo bañ koo gaatoo bañ koo kërëb kërëbee def ko defin wu teey wu jekk ndax yonent bi sallallahu alayhi kat benn bis gis na benn waaye buy julli waaye bi mu jullee ba noppi yonent bi na ko demal julliwaat mu dem julliwaat dikk mu ne ko demal julliwaat mu julliwaat mu ko demal julliwaat ba muy ñetti yoon waa ji ne ko kat man sallallahu alayhi lii laa man kon yow yow mi xam xamal ma nu ñuy jullee yont bi ko boo jugee di julli da nga yéene te boo yéenee nga kàbbar kàbbar kàbbaru armal jàng la la jàppandi ci alxuraan daal di rukkoo daal ba ba ba ba am itminaan maanaam nga rukkoo ba dal ba dal nga yëkkati ko ci rukkoo bi ba taxaw sat taxaw nga sujjóot ba dal nga sëggee ci rukkoo bi ba toog ba dal sujjóotaat ba dal daal di yëkkatikuwaat ci sujjóot bi ba dal waxe yëpp rek benn bu ci nekk daf ko koy wax waaye na nga na nga ko def nanga ko war a defee na nga am itminaan naan nga am mi naan mooy dal i'tidaal mooy yemoo boo boo boo boo sëggee da ngay dal li li ñuy wax reposer parce que lépp dal sa lépp dal boo taxawee da ngay taxaw sat doo doo doo wengulu wala nga def nenn waaye da ngay taxaw taxawaay boo xam ne bu jub lay doon noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee rakk boobu ne ko noonu ngay def ci tàgg rakk yi ci des yépp loolu mooy tegtale ne kon tuma nii na al i'tidaal wala mun dal ak dal ak yemoo dafa bokk ci farata julli naka noonu sallallahu alayhi wa sallam am na bis mu gis benn waay buy julli mel ni daal kuy foox maanaam ni muy ni muy yëngutoo yëngutu yi bari na lool mu ne law xashi'a qalbuhu la sakanat jawaarihu su xol bi ragaloon rek su xol bi daloon cëri dal xol bi moom su daloon ak teewlu ne ca dana daal moom ci boppam waaye yëngatu bu bari bi yëpp li muy tegtale mooy li ne ci xol bi loolu lay tegtale. kon loolu mooy saayir si saayir si julli si nga xam ne moom ñu baree bari dañuy defee ne amul solo biir bi rek am solo waaye am na solo lool ndax day mel ni aw ñam la woo xam ne li koy ëmb am na solo ñam mi am na solo waaye li koy ëmb it am na solo ndax bu xënewul rek dana ci biir duñ ko mën a jariñoo kon faw kaw gi ñu rafetal ko rafetal bu baax te rafetal ga mooy dëppale ko ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci itminaan ba ak def ndànk ga su baree bari booy xool nit ñi bu ñuy julli da xam ne rek lii daal naa ko def te génn ci rek lay doon waaye ndax julli goo xam ne daanaka ki lay séen ngay julli bu déggul li ngay wax wala seetluwu day defee ne da ngay fo ndax gaawtu ga ak yàkkamti ga ngir rek dem ci say soxla adduna yoo xam ne amul amul amul solo waaye li gën a am solo nag mooy boo defee loolu ba noppi nag am na ñu koy def julli goo xam ne kaw gi dana rafet lool waaye li gën a am solo nag mooy baatin ba biir bu nag rafet mooy teewlu ga alxushu fi solaa mooy nga teewlu ci sa xol li ngay def ne ci sam xel nga di ko xellu di ko xalaat di ko setantal bu baax a baax a baax waaw ni yaram yi def xel mi na koy jàpp na koy setantal na koy teewlu te loolu mooy mooy dëgg-dëgg julli nag mooy loolu mooy mooy ruuga dafa mel ni julli goo xam ne amut teewlu day mel ni yaram mu amut ruux waaw am néew rek lay doon du am solo lool te kenn ku ne war ngaa jàpp ne sunu borom waroo koo jox am néew te julli gu amut xusoo mooy jox sunu borom tabaraka wa taala yaram boo xam ne amut ak ruux amut amut dara yonent bi sallallahu alayhi wa na laysa lil abdi min salaatihi illa ma aqala minha kenn amul ci sa julli lu lu toll ni la ci teewlu li nga teewlu ci julli gi rek lu toll noonu rek loolu nga ci am boo ko teewloo lépp am nga lépp boo teewloo lu tuuti am nga lu tuuti waaye leer naan na ci beneen addis ne inna al abda la yansarifu min salaatihi wa lam yuktab lahu minha illa illa thuluthaha illa rubuhaha illa xamsaha illa sudusaha dem ba ci illa ashraha mu ne ab jaama ngi nii boo xam ne julli na ba noppi waaye julli ga du ci am dara lu dul genn wàll yoon la ci am wala sax ñetteelu benn ci ñetti ñetti xaaj benn la ciy am walla ci ñeent ci benn xaaj ci ñeenti xaaj wala juróomi xaaj ci ci ci benn xaaj ci juróomi xaaj wala benn xaaj ci juróom benn xaaj wala dem ba ci euh, fukkeelu fukkeelu xaaj la ciy am dana dem sax baa gi wax wax ne doo ci am dara nga ndax la nga ca am mooy tool lu toll ni li nga ca xellu wala li nga ca teewlu boo ci teewlu dara nag day mel ni amoo ci dara loolu la Cheikhul Khadim radiyallaahu taala anhu di ñu ko fàttali ci yawru nafiis qad nassa fii taar fii ali fihi man alima bi anna lissalaati nuuran azuma wa an zalik wa an zaaka nuura yashriku bihi qalbu musallin xaachiin fantabihi nee na julli day am na leer gu màgg waaye leer googee de mi ngi jolli ci xolub kuy julli te ragal yàlla kuy julli te teewlu julli ga kooku la xol leer julli di nekk ci moom ba mën a def ci moom dara على noonu la ko sëriñ bi waxee ne leer gi nekk ci julli ku koy am rek mooy koo xam ne danga teewlu ci sa julli danga xellu ci sa julli def ca sa lépp mu ne kon nanga nga saxoo teewlu googu na ko saxoo ci julli gépp te du dëddu ci lépp loo xam ne mbirum àdduna la booy julli nanga nga dëddu ci loola wan ko gannaaw ndax xamal ne kat julli kat day tere lu ñaaw day day joxe ay jikko yu baax di tere jikko yu ñaaw waaye kooka kan la koy jox mooy ku ragal koo xam ne léegi dangaa da ngaa teewlu laakin daa bisababil xushu illaa bi xeyrihi kenn mënta am li nekk ci julli ci ay leer li nekk ci julli ci ay dox nit euh, dox diggante nit ak lu dul noona lu dul rek ka nga xam ne day teewlu loolu moom lañ gis ñu bëree bëri ñu ngi këppal këppal di julli di julli di julli waaye day mel ni julli gi amut jeexit ci ñoom joo xam ne feeñee ci seen i jikko loolu la koy waral mooy julli ga forme la noonu ci kaw gi rek waaye teewlu ga ca biir da caa ñàkk moo tax mënut a jeexital ci ki nga xam ne moo koy moo moo koy def mu am nag ay mbir yoo xam ne ku koy def mën na laa dimbali ci teewlu googu lu jafe la teewlu googu lu jafe-jafe la waaye am na yu ciy dimbali nit ya ciy dimbali nit ba ca jëkk mooy di di waajal julli bañ a jekki-jekki rek daal di ba xër rek daal di taxawal li xaam waaye danga koy waajal ci njàpp mu rafet waajal ko ci diglu noddu ba mu jeex ngay wax la ñuy wax ci biir noddu ga diglu waajal ko ci soppi sa eh, jataay bu fekkee eh, ci sa kër ngay jullee wala foo mën di jullee jataay bi nga soppi ko soppi sa yére bu fekkee am nga am nga mm, eh, moyen ya ak waajal ko wàccaay waxee daal dañuy xam ne yow mi yaa ngi waaj jëm ci julli beneen ba ci des mooy li ngay jàng nga fexe ba di ko settantal fexe ba xam li ngay jàng ci ay alxuraan li ngay jàng ci ay azkar yépp nga fexe ba di ko settantal di xam li muy tekki loolu dañ la dimbali ci nga mën a téye sam xel yamale ko ci yamale ko ci loolu bokk na ci ngay ngay ngay ngay ngay soppi eh, saar yi ngay jàng boo jàngee saar bi tey boo liggéey nga jàng beneen saar ndax loolu day waral maanaa yi di soppiku doo ko doo doo def benn saar rek wala ñaari saar rek yem ci julli gu ne bu ko defee maanaa yi du soppiku loolu lépp war nañ koy bàyyi xel waaye ba ci gën a am solo nag mooy nga dimbali ko suñu borom tabaaraka wa taala di ñaan yàlla mu dimbali la ci teewlu musal la ci it ci jax-jaxi saytaane yi nga xam ne saa bu nit kiy julli day dem ci am xelam di ko def loolu lu ne ba xañ ko teewlu googu te bu ko xañee teewlu gi xëy xañ na ko lépp fakun bi rabbikal jamili bi rabbikal mu'ini zasti'an wa in bi ghayrihi ista'anta la tu'an ñàkk euh, euh, fexe it ba booy julli génn ci sa xel lépp lu lay soxal ci julli lépp loo xam ne day dox sa diggante ak teewlu googu nga dindi ko lu ñuy gis la wala lu ñuy dégg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ na ko ba ne bu leen julli bu ñam teewee wala ngeen soxla seen bopp ca wana wa bu leen julli dem leen def faji soxla soose ba noppi wala ngeen eh, jëfandikoo ñam ba noppi dooru julli ndax day bañ boo ca nekkee mu soxal la ba dox sa diggante ak ak ak ak teewlu kon loolu lépp ci liy dox diggante nit ki ak julli mu di ko wattandiku bu baax ba ca des mooy ngay settantal nag gaa yu baax yi yi fi jaaroon di ay góor yàlla nañ daan waajale julli nañ daan waajal julli ak fonk gañ ko fonkoon ba bu dikkee ñu mel ni kuy bëgg a tukki loolu loolu loolu jage nañu suñu kilifa yu tedd yii rek eh, nga xam ne barki démb lañ ci jógee kenn ku ci nekk boo daan waajal julli day mel ni da ngay waaj tukki sëñ Abdou Xaadir gis nañ ko bu daan waajal julli day mel ni da koy wutal ay mbubu wutal ko kaala wutal ko lépp waajal ko wax ne da ngay defe kii boo koy gis te xamoo na day julli ji day waaj tukki te lépp fonk julli ak eh, xir xir gi eh, joxe ko rek ak teew la ko waaye nag nga xam ne nag teewlu googu lu baree bari da cee nekk ci ab yool yàlla da cee dëxëñ ay yool yu baree bari ci kiy julli te di ko teewlu qad aflaxal muminuun alladina hum fi salaatihim xaashiun sunu Boroom tabaaraka wa taala nee na ñiy teewlu seen ak julli ñoo ñooy ñooy ñooy way taxe yi ñooy ñooy taxe kon lii lu gàtt la rek ci teewlu solo gi mu am solo si julli ñu war ci xiir lool ba sunu julli nekk loo xam ne day dox suñu diggante ak eh, eh, yu yu jikko yu bon yi te duñu wutal ay ay jikko yu baax ba nga xam ne suñu jullee ba noppi julli yi dana jeexital ci suñuy melo suñ jëflante ak sunu borom jëflante suñu suñ diggante ak sunu morom ba nga xam ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar dana dëgg ci noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu li ci tegu mooy xutba bi nga xam ne moom la imaam war a xutba ci eh, gannaaw nodd gi xutba bu njëkk bi dafay wax rek ci gannaaw bu mu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu day bëgg rek ñuy gaaw ci tuub yu yàlla ci woo bi mu ñu woo dañu dee leen tuub jëm jëm sunu borom tabaaraka wa ndax ngeen texe ndax yàlla dafa bëgg ñiy tuub kon ngeen dee leen gaawtu jëm ci tuub googu te ngeen fexe nag di muñ yi fara yàlla farataal ci yéen mboolem farata yi nga xam ne yàlla farataal na ko ci yéen na di fexe bay sàmmoonte ak farata yooyu te da ko wattoo sàmm te wattoo sànq da ngeen wattu di ko sànq ndax sànq gi seen alkana rek moo ci nekk képp koo xam ne taxawal farata yooyu farlu nga ca def ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam diglee yàlla dana la xettali musal la ci sawara yàlla dana la eh, tabbal ajana may la ngërëmam te ngërëmul yàlla moo gën a màgg lépp loo xam ne am na na nga rawatina nag farata yooyu yëpp a baax yëpp lañu war a def waaye rawatina julli juróom yi nga xam ne moom moo gën a màgg ci mboolem farata yi moo gën a rëy ci mboolem farata yi ndax ni mu mel ci farata yi dafa mel ne bopp ci yaram ni bopp amee solo ci yaram nee na julli noonu amee solo ci eh, yar eh, ci ci ci jaamu yàlla yi kon na ngeen na ngeen fexe ba féexal ci seen xol seen seen xol bépp bu ngeen di julli ngeen def def ci seen xel def ci seen xol lépp ngeen def ko ci laabal seen i yére laabal seen i yaram bu ko defee yàlla nangu leen yàlla jegeel leen boppam inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na julli ci ponk yi lislaam la bokk inna buniyal islaamu ala xamsin loolu ñun ñëpp jàng nañ ko muy juróomi eh, ponk lislaam yooyu nga xam ne sunu borom nee na julli mooy ponkum ñaareel bi nga xam ne ci mboolem jaamu yàlla yi xutbam ñaareel bi gannaaw bu mu sant yàlla moom it julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ne wax yépp li ci gën mooy waxi yàlla sunu borom tabaraka wa taala muy kitaabullahi tabaraka wa taala waaye njub yépp njub gi ci gën mooy njubug yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gën waaye mbir yépp loo xam ne lu sos la ci diine lépp loo xam ne lu sos la ci diine muy des loolu bidaa la te bidaa bu nekk nag ci diine ak sànkute la te sànkute bu nekk nag sawar rek la jëmee borom kon nañuy wattandiku bidaa lool mooy sos ci diine loo xam ne bokku ca wala nekku ca woon te ngeen xam ne lépp loo xam ne yéen a ngi koy wut ngir àgg ci yàlla te am ngërëmam la ca gën a am solo mooy wéetal ko te saxoo di ko sant di ko tagg loolu lépp lu ngeen lu ngeen di wutee ngërëmal yàlla ak ak ak àgg ci yàlla rek wéetal yàlla moo ca gën a rëy saxal sant ko saxal eh, eh, kañ ko ak ñoŋal ndigalam yi ak tereem yi ngeen ngeen ngeen wattandiku bu baax a baax a baax yaa ci am ay waxtu ngeen di ko def ca waxtu yam doon yaa ci am ay melow yu ñu ko defee ngeen di ko def na nañ ko diglee mu dëppoo ak na nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi de de defee woon wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu tege te ngeen wattandikoo bëreeg yàlla bëreeg yàlla nag lu rëy la bu ko waxee lu rëy rëy la waaye am na bëreeg yàlla am na doomu aadama day bëreeg yàlla ndax lu muy bëreeg yàlla mooy yàlla def leen lii yam leen fii nga jéggi ko yow nga jéggi foofu rëddu yàlla rëdd la bu leen ko weesu nga am ñeme gu toll ni daal di koy jéggi loolu bëreeg yàlla la kon kon nag da wattandiku bëreeg seen borom tabaraka wa taala ci def def tere bi wala bàyyi ndigalam yi loolu mooy bëreeg yàlla sunu borom tabaraka wa taala waaye na ngeen wattandiku it tooñante ci seen biir waaw tooñante ci seen biir ak mbew ak mbew na ngeen ko wattandiku ëpp doole sa morom wala tooñ sa morom lépp na ngeen ko wattandiku yaa ayyuha allazina amanu laa tattabiu xutuwaati cheytaan wa man yattabi ci lépp lu leen di jo ci mooy yàlla wala bañ a def ay ndigalam waaye bu leen topp saytaane mukk ci lépp loo xam ne day dox seen diggante ak seen i morom ngeen di leen tooñ wala ngeen di leen def loo xam ne lu ngeen leen wat wat wat wat a def la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag képp koo xam ne ab jullit nga bu sa jullit wéree da ngay bëggal sa bopp li nga bëggal say sa sa sa morom li nga bëggal sa bopp loolu ngay bëggal sa morom lépp loo bëgg ci lu baax da koy bëggal sa lépp loo bañ ci lu wan danga nga koy bañal sa moroom yal na yàlla dimbale ci topp ko waaye yal na yàlla dimbale ci jéggal nu ci lewetam lépp loo xam ne gàttañ loo nañ ko ci jaamu ko yàlla nañ ko jégal te nangul nu suñu jëf yëpp yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimina amin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 رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات نادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحة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 وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها وهبوها أكبر من أخواتها وأجلها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 wa iitaa'i zakaati wa xajjil bayti wa sawmi ramadaan الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه المشكور فيهما بالجم من نعمائه وصلى وسلم على خير مبعوث لنشر الحق والطي الباطل سيدنا محمد وابن الخير الحاطل وعلى آله وصحبه الذين صيروا جيد الشرك سرعاته الذين بذلوا للدين حقه بلا مطل ماطل أما بعد فإن خير الحديث kitaabullah wa xayrul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuuri muhdasaatuha wa kullu muhdasaatin bid'atun wa kullu bid'atin dalaalatun wa kullu dalaalatin fi nnaar wa'lamu yaa ibaadallah anna xayra ma taxadtum uslatan li rabbikum wa ridaa'ih tawxiiduhu wa idaamatu shukrihi wa hanaa'ihi wa siyaanatu wadaa'ihi wa iqaamatu sharaa'ihi fi awqaatiha almacluumaat wa hayaatiha almachhuudaat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 وأتم تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه آمين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين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 سمع الله لمن ربنا ولك الله أكبر الله allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim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 Allah allahu akbar allah asalaamaaleykum.